STV mooy suñu télé. la chaîne de la vérité. tasaare leen ko. asalaamaaleykum cheikh internautes de Reubeuss TV asalaamaaleykum cheikh sénégalais comme ni ngeen ko xamee débuté woon nañu émission sunu ASC bi nous nag ñu ngi deuxième numéro dugg ici ci Médina seet ci koo xam ne ne Ahmed Tall lañ koy wax ñu bëri xam parce que tur boobu moo nekk tur joueur am Ahmed nag nekkoon na fi grand joueur euh, def ay beaucoup yu dans la zone 1 fi mu toll nii nag changé na na coach Aujourd'hui, nous la ñu seet si bëgg est ici, fii ci rue 25 angle 20. Ameth ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay di kontaan si seet si bi ngeen ma seet si parce que loolu am na solo torop di ñuy ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp daal. Euh, tey loo ñu mën a wax ci Ameth Tall. mooy benn nit bu simple la benn nit bu simple bu doon jouer fii comme ñëpp doon football fii nawetaan et tout def ay tuuti jaloore daal laa mën a wax tuuti jaloore. waaw kooku daal mooy ahmed euh, Ameth euh, ci samay source euh, gis nañu ne zone 1 def nga fi ay jaloore yu bari nekk nga fi meilleur jour plusieurs fois le début carrière u nous ci commencé. ok loolu dama si sawar a tontu parce que ñu bëri dañoo jàpp ne Santhiaba laa dëkk mais sama début carrière nous avons passé jàppoo maa ngi fi joué cadet et tout ça après je fi senior. mais senior trois ans rek laa fi joué après par la suite si laa dem joué ji sanca ba quoi waaw noonu la demee daal. Euh, loolu mun nañ xam ban année la woon. waaw damay ñëw jugee jàppoo du jam sanca ba pratiquement 2005 la laa jóge jàppoo ñëw sanca ba léegi ba ma ñëwee sanca ba nag presque joué naa fa ay. année yi dul jeex ay année yu bëri ba nga xamante ni ñu bëri dañ yaakaar ne foofu laa dëkk parce que yëg-yëg bi ñu amoon ci man ak ni ñu ma doon teeroo et tout ça bëgguñu woon ma fay jugee tout le temps moo tax pratiquement 2005 laa fa joué 2006 après dem joué lii 1 quoi waaw dem joué Ligue 1 Gorée. Euh, euh, début bi nga koy def bi ngay dugg ci nawetaan bi euh, est-ce que da nga ko duggoon noonu par par plaisir wala da nga gëmoon football wala da nga ci bëggoon def carrière boo xam ne ne carrière bu mag lay doon. ok mais xam nga football ñun dafa pratiquement pas samay parents ñëpp ay footballeur la ñu woon famille footballeur lañ bu ma juddoo jàng laa doon def jàng dama ko mënoon dama doon jàng di jël ay paie tout mais football bi chaque fois bi ñu joué match scolaire na la maa jëlee ay meilleur man daal il ma dem dugg si football bi. parce que pratiquement su ma ñëwee du mu ne ma doo football da ngay dem jàngi ñun football nañ ma bàyyi nangam naa ma ne ko man dama bëgg football noonu moo ma gën a soññ ba ma nekk si football bi di jouer. di ray sama bop ci lu ne chaque jour entraîner matin et soir pour né dama bëgg réussir loolu moom loolu moo ma gën ci loolu dama bëgg réussir pourquoi pas ñi di réussir mënu ma réussir mën naa mun a sama bop ci football bi mais yalla bu dara tawul yàlla def jotuma ci réussir kon nuko nuko yalla ko dal ak gaay ñu ko bëggee noonu demee. Euh, à part Diapo ak Santhiaba yan équipe nga joué nga jouer waat fi ci zone 1. euh Xandaalu joué naa Xandaalu 2008. ba may jugee sanca ba xandaalu moo ma contacté si laa ñëw xandaalu ñoom it ñu accueillir ma accueillir bu rafet waaw parce que li ma fa dem rëccuwuma ko daal parce que xam naa fa ñu bari ñu bari ñu bari xam naa leen fa grand yu bari koo xam ne maa ngi door jàkkaarloo yow dama laa gis nga ñuy sonal dañu bëgg a rey et tout ça <laughs> may ne waaw mais rek grand yow football moo mel noonu mais dañ ma waxee parce que zone euh, loolu yàlla dafa def avant may may jouer sanc ba dama ne woon bu ma jouer sanc ba xandaal laay jouer parce man dama bëgg football équipe bu am ampleur supporter rythme beeg yooyu chaque fois loolu laay bu ma joué wul kii rek damay fee laay dem joué quoi xandaalu yàlla def nag ñoom ñu proposé ma si laa dem joué ji xandaalu ñu dem joué phase nationale et tout ça waaw mais contentement rek laa si gis daal contentement. jamono boobu euh, yan jour yoo xam ne tey mën nañu tudd seen tur yi nga defandoon carrière. xandaalu. muy xandaal sant waaw Santhiaba dafa noonu na ay joueurs yu bëri exemple ay Laye Goor capitaine bi ay Mafal hmm, ay ay ki ñu doon wax Cubalo bu Cubalo Aline ñun ñëpp ñu ngi defandoo carrière bu rafet foofu carrière bu nice fële xandaalu la même chose ay ñoom Saaw ñoo defandoo foofu ay ay ñoom ay ñoom xuus hmm, ay Modou Waane libéraux bi Modou Mané ñoo nekk fa ay cheikh cheikh bu dëkk pikin xam naa ñu bëri ñu ko waxee dina xam ku may wax waaw ñooñu ñëpp ñoo jëndoo xandaalu quoi def fa ay parcours yu rafet yu nice quoi mais rëccu ma si dara daal rëccu wu ma si dara daal. ci sa carrière nawetaan tey ban match la boo xam ne ne vraiment match bi am na fu mu la toll ba doo ko fàtte jamais. ah bëri bëri na damay lim xanaa damay lim ay quelque rek mais bëri na quoi. am na boo xamante ne finalu Santhiaba Ngaraaf la finalu Santhiaba Ngaraaf. 2015 euh, boobu récemment la parce que Ngaraaf dafa ñëwoon jël coupe bi ñëwaat beneen année bi finalu waat ñu daje léegi gars yi nag Ngaraaf moom moo war a mën a gagné Santhiaba parce que Santhiaba dafa takkale ba dem final ñëpp lool lañ doon wax parce que ñu ngi gagné xandaalu demi final par série mais ñu joué premier mi ñu. mën nañu 1-0 bu ñu mënee 1-0 Santhiaba supporters yu bëri sax ñibbi nañ. ñu bëri ñu bëri ñibbi nañ parce que dañu ne non lii mënul nekk ngaraaf du tegle coupe bi suñu kaw ñi ni di jooy commencé affaire bi kii réception bu garaaw ñu mitan gars yi di booboy même supporter dañu saaga di saaga pour ñoom affaire bi jeex na mais ma ne leen ñu mitan ma wax ak joueurs yi man ñoom laa am lu may wax ma ne leen gars man lu may leen xamal mooy ñun ay joueurs lañ te dañoo bëgg quartier bi te quartier bi waruñu nangu benn équipe ñëw tegle coupe bi suñu kaw il faut ñu reyante loolu parce que ñu nangoo ñu teg la coupe bi suñ kaw way boobu du fay ba ba ñuy nekk paa di am ay doom dañuy naan yéen a fi toogoon ñu teg la coupe seen kaw. waa te loolu loolu dafa ñaaw ma ne nag ma ne nag gars yi nañu def lu ñu mun suñu këttalaay kàttan ba match bi buñ ko ñàkk bu ñu duggee ku ne na reyante xalaat ñi ñuy seetaan ak ñu bàyyi stade bi dem ñibbi yàlla def ñu égaliser dem série ñu gañe dugal gañe bi maa ko dóor ñu gañe leen am na beneen boo xamante ne tamit xandaalu la woon. ñu ne poule de la mort ñu ñëw ne xandaalu la ñu am premier match fii nii ñu euh, Iba Mar Diop waaw poule de la mort stade bi fees dell gars yi ñëw naan xandaalu tey lay rey sant tey ñu dóor leen 2-0 année boobu boo xoolee xandaalu match de poule la toog match de poule la toog quoi année boobu am na boo xam ne contre Liberté 4 la Liberté 4 tamit euh, ñu daje match de poule la dóor toog départemental Liberté 4 mën a ñu 0 premier mi-temps gars yi ne euh, ba ñàkk na ba ñàkk na ñu ne ñu ne ñu bëri sax ñu ñibbi naan Santhiaba pare Liberté 4 ko mun ñu ne nii ne yàlla def avant ñuy mi-temps ma génn am benn bal bi may génn centré suñu attaquant bi mbëkk mu dugg muy 2-1 ñuy joué joué temps bi ay 5 ñu am coup ma teg coup franc bi dugal ko muy 2-2 match bi nekk match bi am ampleur deuxième mi-temps bi la dugal troisième bi par la suite si la Liberté 4 toog mais mooy match yoo xamante ne dafa mooy kii quoi dama koy xalaat chaque jour. ay match yu am solo la daal waaw yu ma marqué. tey xam nga nawetaan kenn du ko wax te waxuñu mystique parce que dafa ancré ci bopp gars yi parfois jik ci benn bal dal ci poto bi ñu ne noo bal bi bal de but la woon mais xooyee ko xooyee tax bal bi dugg. Uh-huh. est-ce que en tant que joueur mës nga sentir nga ñëw match tey nga gis ni tey moom ça ne dañ la jàpp dëgër. waaw non xam nga fii moom Sénégal ak mystique ñoo ànd mais man pratiquement gëwuma ko à cent pour cent xëy na looloo taxoon mu jaaxal ñu bëri bëri. gëwuma ko à 100 pour cent mais lépp lu ñuy def dama koy defandoo ñoom mais ay pal bi camp yi tëj nañ yooyu yooyu yëpp xam nga waxu waxu waxu Sénégal la rek mais jour en tant que jour dañ koy jàpp mun na la def loo xamante ne yow doo nekk da ngay tayal doo nekk si match bi doo xam sax foo ne parfois dal na may match mais dama koy gérer parce que day am foo tolloo xam nga ak mag yi ñu doon entraîné di ñuy tàggat dana naan am na fu muy tolloo yow même boo xamee ne yow nekkoo si da ngay teel a bàyyi bal bi boo contrôler paasal taxaw gérer. dama ko doon gérer gérer ba ay deuxième mi nga gis gars yi defaruwaat am ñu kii ñu nekkaat si mais jour en tant que tel dañ koy jàpp mais boo ko jafee sa xel de tour da lay sonal parce que euh, football fekkoon loolu rek la ñi lay jox ngay sangu wala di la jox ay galaaj ñoom fekkoon ñoom loolu loolu moom mooy mooy priorité comme seen doom dinañ fubal mais problème lam la wax damal entraîné nga war a entraîné bay bëgg a dee ñu la del teel a parce que entraînement bi nga récupéré boo paree si jour pour jour nit jàpp la c'est problème la kon man mënu ma ñu bëgg a jël loolu def ko priorité du priorité dafa bokk ak ñun loo xamante ne mënu mënuñu dem bàyyi mënuñu dem bàyyi ko mais loolu quatrième position la si sport rawatina football il faut nga pare entraîner ba pare parce que boo fekkee benn waay bi nelaw ko yow yow ngay entraîner chaque jour ngeen daje terrain dina gis dina xam ne bokkul kon il faut ah, te ko joxoon gàllaaj ñu gën si àdduna bi yëpp day sonal rek du dem fenn kon loolu il faut loolu gars yi di si bàyyi xel mais dafa nekk benn charme nawetaan xam nga dafa bokk si charme nawetaan waa ah <laughs> gars yi lan la quoi dugg si dugg si nag leket dugg si nag nii dafa ànd dafa ànd ak charme bi daal mais priorité bi mooy foo dem ci équipe yi te xoolal pratiquement équipe yi mos a jël coupe yëpp surtout zone 1 parce que dafa nekkoon zone zone boo xam ne am niveau joueurs yi fa newoon yëpp dañuy jouer ay ñi ay ligue 2 gis ku nekk ligue 1 jouer 4 matchs pour ñëw jouer nawetaan cinq zone 1. du moins waaw waaw engouement bi quoi nu muy amee ampleur match yi am niveau parce que man damay gis yenn pas damay dajeeg ñoom dañ may gis na ma non booy man daal man football léegi neexatul man daal grand déet waaye ñu ne non gisatuñu amatul niveau booy xamatuñu dara mais yéen seen génération dañ daan seetaan mais match yi day neex am rythme am niveau mu ne loolu moo amatul moo tax moom dematul stade te loolu moo doon indi engouement nga gis gars yi dugg si ñu naan ay caaya la ñu sol ay affaire yooyu waaw ay percal ampleur boobu moo si doon neex si nawetaan quoi mais gisoon nañu autrefois euh, que nawetaan affaire de quartier la Londres le ah. quartier bi ñoo équipe mais nous dem na ba en tant qu'ancien jour. joueur avons fait phénomène vraiment mais avancé parce que évolution la parce que doo ñu a fait koñ dañ ko daan def football amul sax jour. ampleur. mais newetaan mel ni coupe du monde la wala coupe d'Afrique koñ bu ne bu waree dajeeg diw sax wala mu am dër bi da ngay gis gars yi supporter nekk si benn rythme engouement ñëw terrain ñii duñ ñu gagné nangam nangam léegi nag dafa dem ba léegi affaire yi dafa avancé ba nga xamante ne léegi da ngay gis équipe bii gis benn joueur benn xaama dem jël ko pour mu ñëw jouer sama équipe. te loolu lu ma gis ne benn avancement la rek évolution bu am parce que loo xoolee au niveau da ngay gis kii ñu ne doomu équipe bi la mais gars yi dañ koy soxla jënd ko mu dem jouer beneen équipe parce que sport moo mun a boole. loolu rek la quoi sport mooy boole te loolu dafa rafet sport mooy boole nit ñi kon nit ki day am day am benn ñi gis ko kenn gis ko ne ko demal jëw jouer équipe bi dama soxla nga jouer dafa neex quoi ngay dem jouer foofu ñeneen ñi la bëgg musuloon gis di la gis ngay entraîner seen équipe ñuy kontaan da ngay dem stade da ngay yokkaat yeneen supporter parce que loolu moo si am engouement mais du leneen mais parce que équipe yi pratiquement koñ yi léegi boo yi parce que ñun suñu génération mun naa ne suñu génération boobu noonu may wax si équipe yëpp yëpp yëpp ñëpp dañ doon compétir mais léegi lu tax gars yi di faral di jënd jour dem ba jënd ay Pikine ay Guédiawaye mooy boo yi fi nekk léegi du ñu compétir com du ñu compétir ñemewu ñu dem compétir léeg xaar nawetaan des trois li may yoo xam nga da dem ñu dem nga fekk leen kusum wala ifan ñu fekk fa cent personnes di rey seen bopp naan nawetaan la pare léegi nag yow ñun chance boo la ñu amoon ñun ñu doon compétir bu ñu ñëwee chaque jour day am lu ñu leen rawee voilà day am lu waaw bokk te grand koñ ku se danaan sa booy booy dem leen ngeen compétir booy di bañ léegi nawetaan bu jotee nga dem jëndi jour loolooy indi chaque jour problème léegi ñoom ñu ñëw ne dañuy entraîné bu ñu ñu naan fi lañ dëkk dañu war a géé te fekk entraîné wuñu compétir wuñu te dañu war a loolu nag mooy indi problème mu jëm jënd bi li gën a indi sax loolu la parce que da naan man daal booy yu ma yor doyuñu ma parce que ñeneen ñi dañuy am ay joueurs yu baax xama dem jënd ñeneen pour mun a dem sama yoon mais bu ñuy demoon di compétir du ñu am problème boobu mm-hmm. sànq wax nga lu am solo wax nga ba wax waxu supporter wax engouement bi nekk ci nawetaan tey en tant que en tant que ancien joueur gis nañu ne que zone un zone bu ndaw la équipe yëpp presque dañoo jàkkaarloo mbaa ñu tegalante tey mosoo dund jógee ci joué ci équipe war a génn dem fenn dajeek nit mu saaga la wala affaire yooyu. Ah, waaw waaw xam loolu loolu mënul ñàkk supporter yi moom euh, chaque jour da ngay gis supporter boo xam ne sax dalay saaga fekk yow xam nga loolu dama dal ba taay estat damay dugg si dañ lay woo ba nga xool la ñu saaga la jaar fu bon ne la tey lañ lay rey xam nga mais ab damay reetaan rek parce que damay xam ne moom xëy na xobe bu mu xobee si équipe boobu moo tax muy waxee noonu te buñ daje woon feneen parce que dañ na mu daje feneen xamuma ko mu nuyu ma dama gaa ah, xam nga ma maa ngi ko déedéet mu ne ma man maa maa doon saaga jour bi mais li ma doon saaga yëpp dama bayoon nga dugg fubal rek pour géje ma ko waa waaw kii ma m ne ko ah, yooyu parce que ku xas ba dugg si nawetaan rek waroo bañ ñu saaga la waroo bañ ñu wax la dara parce que sa bopp yow sa supporteeru bopp da ngay yàq léegi mu saaga la nga dugal léegi mu yuuxu moom mooy yuuxu fekk la sax yanu la kon yow doo comprendre loolu yow loolu yow muy joueur waru la déranger parce que bu la déranger rek da lay sonal day tax yow sa mental du baax te joueur da nga war a am mental. da nga war a am waaw parce que man même bu may dem xandaal loolu la a wax su supporter Sankey bi moo rombee fii yow ba mooloo baaxoo waroo ñu def nii ngay dem ay xandaalu nangam nangam te eh, rek dem mu mu jeexee ñu ñëw ne non xam nga rek amee bëgg ñu woon nga dem looloo tax ñu doon wax ñu ngi jéggulu chaque fois noonu lay demee répétition yooyu lay doon parce que bëgg-bëgg la te ñoom looloo tax ñu koy dund doo waxee ñu ne la ñun yéen amet comprendre lu ñuy dund xamu leen ko man damay liggéey koo xam ne xandaalu la dëkk mais lu ne lay wax jënd seen jour bi yéen amu leen xaalis ah Sarr wax yooyu waaw waaw waaw amu leen xaalis moo dañu ñu jënd seen joueur bi détail yooyu quoi léegi nag yooyu nee moo leen di metti ba nga xamante ne duñu mun nelaw léegi duñu ma gisee dañuy seen xol day jeex mel waa mais mel leen mais sport moo mun a boole waaw sport moom yàlla dafa def man noonu la man quartier yëpp aw ma fa fenn sens interdit la preuve nga demes laa dëkkee ak sama soxna mais dam ñëpp samay gaañ lañ damay waxtaan ak ñoom di kii ba pare dañuy def sax benn sélection boo xamante ne ñun suñu génération sélection Médina lañ ko tuddee ancien yëpp a ngi si samay moroom ñëpp mais affaire bu naaj te ñun ñëpp boo leen gisee day mel ni ñoo bokk ndey bokk bàyyi kon supporters yi tamit loolu la ñu war xam nawetaan benn moment la te nawetaan du at 6 mois la amul barrage amul dara bu amee nañ ko def si fulla nañu fubal fubal bu sérieux na am rigueur na am lépp mais bu jeexee ñu nekkaat benn war supporter war nañ ànd longante bu ma gañee kële supporter bi nga gañee yow nga dem jënd ko kereem ngeen ànd ñibbi mun na nekk pourquoi pas te day te du jeexee yéen da ngeen di àndaat du neetaan jeexee ngeen àndaat loolu baaxul parce que loolu day indi beneen en te ñun war nañ mu supporter yi ñu nekkee benn supporter yi war nañ nekk noonu benn pourquoi pas parce que man joué naa kusum quart de finale ñu gañe leen ñu génn match bi jeex Ayanda fekk ma ba si gaa yi woo ma si si mi daal la may ma ko ak protéger kon ñun ñun ñun amuñu problème yooyu mais la moo tax supporter yi am problème yooyu. waaw kon loolu loolu loolu loolu nag laay lancé pour ñu gën si bàyyi xel nañu bàyyi détails yooyu xaw ma nag nawetaan dina amaat wala du am mais du fekkee mi ngi am na ñëpp xam ne dañu war a bokk ndey bokk bàyyi. équipe bu joué tey ren ñu joué ñu gañe la demal nga defar waat xaw la moo la perteloo mais paa ngeen di reyante di jamante di tojante bopp amul sens te ñun ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay foo loolu gars yi bàyyi si xel. Euh, tey ku wax euh, nawetaan wax turbine wax supporter ban équipe d'après yow la seen supporter am soo ñëwee stade xool leen sa xol day sedd. ah loolu loolu loolu ñëpp xam nañ ko xandaalu la loolu xandaalu la zone 1 boo jëlee xandaalu boo si tegaat keneen ay demes nga siy teg parce que xandaalu yàlla fa dem ñoom ñëpp dañu bëgg équipe bi. am engouement xobee ba pare du ñu ñëwee dañ koy teg si yoon supporter yi dañuy support parce que xam lu tax ma ne xandaaw am na supporter xam dañuy supporter mais buñ leen mënee ñu arrêté mais xandaaw da ngay gis ñu mëne ko supporter yi di gën a supporter parce que Fallou moom sama waaye dañ daan toog même bi ñu demee Fadial daal di waxtaan loolu laa ko mu ne ma ne ko loolu laa leen gën a nawee parce que da nga leen di mëne sax ñuy way di supporter parce que loolu foo la nga dégg mu naan foog ree la parce que foog ree la il ñu gars xam loolu moo tax même burul fii man dama daan dem ay Pikine gars yi mu ne mu ne seen xam naa moo may daaneel am solo te loolu yëpp loolu la ñu war a def bu match amee ñëpp solo ba rafet dem supporter bu ñu leen gañee ñu ñëwaat nank dem defarwaat waaw loolu am na si solo. Euh, tey Ameth reconvertir nekk coach euh, ban équipe école de football nga yor fu mu toll maa ngi yor benn école football bi ñu wax Fodé Ndiaye waaw Fodé Ndiaye moom laa yor depuis presque def naa ay cinq ans six maa ngi ciy nekk di leen yor école football bi xam nga comme ñun mooy li ngay wax comme duñ nekkee ci football ba yenn moment yàlla def euh, réussir aussi euh, war nga mun a nekkaat ci football bi pour mun a jàppale say rakk ak say jarbaat. voilà parce que ñun au moins ñu amee benn tuuti expérience même bu ñu amee ñaar ñoo xam ne bëgg nañ ñu jéem a jàppale ñooñu pour ñu jéem a avancer. parce que lors de ces am solo surtout école football parce que ñun dañ ñu ko doon ba ñuy dem fo def nañ formation bi tout ça lors la ñu doon gën a wax mu école football éducateur nga war a doon nga éduquer notre qui on les leen war si lu bëri parce que nekkul moom en personne football bi c'est moi moi c'est am solo parce que boo les école football da nga gis jour bu ne ku nek ngay gis ko xamantene ne fa na lay jóge man amna fa ay Guinéen yu fa nekkee tout ça amna ay boo xamante ne ay làkkat lañ do xam sax fuñu ñu am ñoo xam ne boo comprendre da ñëw rek mais il faut nga accueillir leen parce que école football la parce que da nga ko war a def un homme ñu ni nag dañu yaakaar ne école football waa ji dafa war a dem réussir si football bi parce que ñëpp mënuñu réussir si football waaw football ñëpp ñu si réussir léegi yow lan nga mën a def mooy nga jëm leen def un nom di leen jàppale di leen éduquer di leen wax lii leen lii ba pare di leen wax respecter leen seen parents yi ba pare surtout éducation bi ak jàng bi parce que ñu dañuy insister si loolu bañ na boo amulee moyen sax. dañ la naan dootoo dootoo entraîné waaw dañ la naan dootoo entraîné parce que tamit loolu la ñu tàggat loolu lañ leen jéem a pour ñoom ñuy jéem a jàng parce que sport étude la ñu wax waaw mais gars yi dañu yaakaar ne jàngar football rek rek la football bi léegi boo si réussir nooy def après da am problème dañu ne sport étude léegi lenn moyen da ngay jàng ñëw entraîné boo amul moyen dañ lay écarté waaw di la conseiller ci loolu jàngal leen respecté leen seen waajur seen ku nekk religion am na ko respecté parce que am nañu ay chrétien ku nekk nekk foofu nanga nga sa religion ñun daal si yoon boobu lañ nekk quoi si yoon boobu lañ nekk incha allah.

ndax biñ ma kiyee ba léegi ci maa ngi kii si joué si championnat yi teg si loolu yëpp su demee ba tey sotti tey c'est grâce à Fodé Ndiaye waaw. Euh, tey gis nañu ne euh, ñu bëri say morom bëgg nañ dugal ci dugg ci football def ci carrière yow lan mooy say projet fu mu doon. ah sama projet moom comme ñëpp rek comme sama morom yi fi nekk nii tey suñu projet mooy doon ay joueurs professionnels au niveau ndax dimbali suñu waaju te mun naa ne bu ñu ñëwee fii incha allah tamit mun na sotti waaw. Euh, seen seen seen seen entraînement yi fii ni mu demee c' est c' métti na wala. waaw mun naa ne métti na mun naa ne méttiwul ndax boo ko gëmee di dina oyof ci yow dina am intensité am lépp mais c' est facile mais bu dee day daa ànd ak tricherie doo si mun dem quoi foog nga gëm ko te nga def si fulla tamit ak fayda mooy tax nga avancé. te ñuy wax sport étude yow noo ko gisee. waaw sport étude tamit gis naa ko waaye man dama teel a bàyyi jàng dama dem mujj bi mënu ma boole entraînement bi ak travail bi ndax dama doon def matin soir léegi nag ma mujjee abandonné études yi dem si sport bi direct ma concentré aussi mais ba léegi taxut maa ibbi samay livre di liir di jéem a xamaale tamit waaw. ok Pascal kon ñu ngi lay remercier bu baax merci beaucoup. merci tamit pareillement. Ah. waaw. comme ni ngeen ko xamee cheikh internaute de Reubeuss TV aussi cheikh sénégalais ñu ngi woon ak Ahmed Tall nekk ancien joueur fii si zone un aussi def na tamit carrière professionnelle joué na si championnat nekk na fi plus plusieurs fois meilleur joueur meilleur buteur tey nag euh, reconvertir na nekk coach nekk fii ci école Médine euh, école euh, de football Fodé Ndiaye Ahmed ñoo nañ gis nañ fi boy yi ñu ngi former et tout ça Euh, depuis kañ nga ñu intégré fii. ah pratiquement depuis 6 ans ah, ñu ngi siy yëngu si école football Fodé Ndiaye bi parce que paa bi comme mu ne paa Ousin moom la école football yi paa xam la ko et tout ça moom moo ñëw am confiance ñun ne dafa bëgg mu ñëw liggéey xalé yi. ta loolu ma ngi ci sant yalla dal motax tax ma ñëw am ci contentement sawar di ci liggéey te gis na né maa ngi si yëngu bu baax a baax a baax. Mm-hmm. te gis nañ fi ay boy yu bëri ñu ngi fi euh, euh, euh, nan ngeen di gérer fu mu toll nii e-, effectif bi fi nekk. ah voilà bonne question parce que mooy li ma doon wax sànq rek école football dafa xaw a métti dafa xaw a métti parce que ku ñëw rek da nga ko war a accueillir pour jéem ko gérer parce que mooy li ñuy wax nekkul pour joueur bi nekk professionnel pour fexe mu nekk un homme la jëm ko dimbali moo tax nu ñu munti def dañuy jéem a essayer de gérer. ñu ngi def essayer def travail boo xamante ne ñëpp dinañ si mën a yëngu gis seen bopp ba nga xamante ne bu ñu ñibbee dinañ xam ne am na lu ñu yëg dinañ sawar ñëwaat parce que tamit euh, école foo bi permettre na bëri booy tax nekk ñu ay bandi booy demuñu ay géej di nekk si ay plage bay labak tout ça parce que léegi seen xel li muy nekk rek heure entraînement jot na xaaral ma dem école Médine entraîné ji foofu te loolu daf si am solo loolu nag moo tax ñu siy gën a sawar waaw moo tax ñu siy gën a sawar métti na mais dañuy gérer daal. Euh, là on est au cœur de, de la Médina xam na quartier populaire la mais soo ne Médina Rebeuss mi ngi ci wetam Gueule aussi mi ngi euh, pour intégrer école de football bi euh, fan nous voir war a wala parents yi fu ñu war ah ok bonne question loolu tamit am na solo parce que am na boo yoo xam ne pratiquement sax Rebeuss le dëkk. waaye ba léegi mi ngi dëkk Rebeuss et tout ça mais école football pour intégrer. 12 500 douze mille la moy inscription totale bi 12 500 équipement bi lay jox la yoy ak euh, yi ñuy jënd médical et tout ça li ci des mom la ñuy ay quelques ballons yek yoy parce que ñun ñoy gérer loolu ballon wala matériel wala polo bu xaw manqué xaliss bobu non lañ koy compenser wala ben boy bu gañu yalla tere tere am gañu gañu fenn mom la ñuy jël. yobu ko fay ci hôpital et tout ça pour mu tane té pas yépp pa bi mo koy gérer paa euh, comme nous l'avons dit, ko propriétaire quartier populaire lañ euh, li mën a dévier jeune mu dugg ci leneen loo xam ne euh, mën nañ ne lay est-ce que l'autorité yi nekk fii ñu ngi leen di jàppale wala ñu ngi wala aussi mairie bi ñu ngi koy xool plan di jàppale école de football yi nek. ok waaw mairie bi monsieur le maire tey dañ koy dans le coup de gërëm parce que monsieur le maire chaque année mi ngi joxe subvention. di Jap, même avant Covid bi sax defoon na ben tournoi tournoi école football xalé yépp ñu ko doon def mais pratiquement fever bee yàq lépp té lool yépp euh, ci taxawayam la kon mom, ñu ngi koy ñu ngi koy sante dal di ko gëreum di wax lu mu gëna mëna jappalé xalé yi ak école football yi mu def ko parce que tamit dafa am solo si gox dafa am solo mais pratiquement comme autorité ngay wax gisuguñu kenn gisuguñu parfois la ñuy gis ay quelques bonnes volontés ñu ñëw may ñu ay ballons wala may ñu matériel wala ñu may ñu ay dosaar te loolu ñun comme nii ñu ngi wax Medina lañ nekk bëgg nañ daal képp ku fi nekk koo xamante ne bonne volonté nga te bëgg nga jàppale xale yi nga ñëw fii daal dimbali ñu parce que ñu ngi école Médine di entraîné nga fii dafa xat gis nga ni mu mel ñëpp ay jéem a xaj xajaloo école football yi trois école football ñu ngi fi. gis nga ñi fiy xëy yem xaj xajaloo xool ni ñuy entraîné pour gérer tout ça kon lu ñu mën a gën a mën a jàppale ñu jàppale ñu parce que ñun kenn am ñun kenn ñu ten fay amuñu ci dara mais volonté bi ñu bëgg ak amuru football bi motax ñu siy ray suñu bopp daal. Euh, euh, tay suñu duggé ci actualité parce que jeunesse lañ wax tay gis nañu euh, phénomène immigration clandestine ñëwaat na xalé yi dogat gal bi yo nga nek fi di gérer ben équipe tey ban message ngay lancer jeunesse du Sénégal bi waaw ah, message bi may lancé mooy bu kenn jéem a xalaat dugg ci gaal parce que géej amul bànqaas defe naa ne ñun suñu éducateur yi ba ñuy nekk xale lañ doon wax man moo tax pratiquement boo xoolee mbirum géej sax waxuma ci dara parce que dañu ko daan teela a tàggat ba ñu ragal ko ne géej amul bànqaas amul fooy jàppandu kon pour quoi ma gis xale yi naan dañuy dugg ci gaal gi pour dem pour dem pour ay Espagne est-ce que doo demee Espagne xam li nga fa bëgg di ko fa am. parce que c' est pas évident est ce que li nga fa bëgg di nga fa am pratiquement booy man daal li ma leen ñaax mooy ku nekk sa gox bi nga nekk na fa toog nga liggéey waaw nga liggéey te gëm borom bi waaw loo am nga suturloo ko parce que tamit ngay liggéey am benn wéccit bu ndaw jege sa famille dara dàq ko dara dàq ko man daal su ma laalee ni lancé ñu gën a góorlu toog liggéey fii seen gox ba pare ñëpp bu ñu demee kan mooy liggéey gox bi ndaw dootu fi am loolu il faut ñu bàyyi ci xel bu baax a baax baax. comme nous cher internet comme ni ngeen pratiquement après midi aussi mën nañ zone 1 parce def na fi ay na équipe na fi supporters euh, mu ñu coach légui toujours dans le cadre de votre émission sunu bi numéro 2 Ahmed euh, ce mot de la fin. Ah, mot de la fin moi, remercier remercier di remercier samay parent tout ça ba waral ba mu nekk nii parce que c'était pas évident ñun ñu ñëw ba football ba bay di nekk entraîneur di leen sant di leen remercier di remercier Pausin ak képp koo xamante ne ah, jaa jàpp na si sama carrière yi ma jot a football képp ku mu munti doon parce que ku lim juum ku lim juum di remercier ñëpp di wax ne ñun daal ñu ngi fii di liggéey discrètement di ñaan yàlla daal ah, képp ku ñu mun a jàppale ñu ñëw jàppale. waaw parce que affaire surtout xale parce que xale yi la ñuy tàggat képp ku ñu si mën a jàppale daal jàppale ñu si loolu la ñuy ñaan di ñaan li ñuy li may soobu ni yàlla si yàlla gën a def xéewal bu saawan baawaan si barke Seydina Mohamed. mooy suñu télé. la chaîne de la vérité. tasaare leen ko.